moom mu ngi yëngu ci wàllum bâtiment ak it construction depuis ci ay atti at tey jii moom moo nekk directeur bu entreprise bi ñu duppee Combat TP depuis ci atum 2001 naka la Abdourahmane Gueye daal di yegg si ngir rek mën a réaliser bànqaas biile. bi entreprise jafee ci la ñu créé entreprise Combat TP commerce bâtiment travaux publics depuis 2001 am na nu mu ñu koon tudd après ñu changé waat ko mu tudd 2001 ñu doon exercer suñu. suñu travaux yu bëri nag ci aéroport international Léopold Sédar Senghor ADS ah boobu nag euh, naa nekkul woon ADS avant muy nekk ADS dañu nekkoon euh, service boo xam ne euh, article 2 la tuddoon hmm, moo géré woon ñee tudd article 10 mais benn chef bi lañ doon am bi ñu demee nag ba Robert Sagna ñëw ci la éclaté article 2 fii article 10 fii 10 mooy bu Sénégal 2 mooy international bi mooy 18 pays membres yi léegi nag man presque daa xoolee sama carrière yëpp foofu laa ko passé donc euh, nekkoon na ku xarañ nag nekkoon ku xarañ a xarañ début bi nag jaaruñu foofu xam nga di nga rampe rampe ba yegg si ba créé loolu moo tax xale yi il faut ñuy nangoo liggéey di nangoo daan seen doole. ci secteur batiment bi nga xamante ne moom lay yëngu mu am ay jafe-jafe yi nga xamante ne entrepreneur yi nekk fii ci Sénégal la ñu ngi koy jànkonteel. dëkk bi léegi nag am na problème bi ñuy am entreprise sax problème bi ñu am ñoom seen journée yi léegi cher na journée yu chair la ñuy laaj bu njëkk daa nga fay mason bi 3500 4000 jamono yooyu mu liggéey la liggéey bu mucc ayib mu doon mason yoo xam ne dañoo jàngoon liggéey mais léegi yóbbu nañu seen journée yi ba ñii ba 8000 ku la ci liggéeyloo ba wàcc dangay ñëw fay ko ne ko jéggal naa la parce que ñoom seen problème mooy da ngay nekk ma neebar nga jékki jékk ñu fay la 3000 wala 3500 nga xeeb ko def fa une semaine yor turel commencé taqale bëgg a am 8000 ne maçon la moo tax chantier yi léegi am problème chef d'entreprise yëpp dañu am problème te léegi euh, beneen bi ci toppaat bi gën a metti mooy da ngay dem gagner marché. nga gañe marché xam nga am na marché yoo xam ne bu dee lu ñu la jox avance yow sa fonds propre ngay dem liggéey ba pare soo liggéeyee ba pare paiement bi da nga ciy topp daw a daw a daw daw bu bëgg dee nit ñi am ay factures yu duré trois ans nit ñi am ay factures yu duré sax 10 ans ñu dem sax ba ñu leen seen factures yi mënatuñ leen koo fay yooyu yëpp injustice boobu yëpp entreprise yi entrepreneur yeeg ñëpp dañ koo dund te boo xoolee dettu entreprise yi kenn xamul nan la toll dañ doon dem ci banque yi nga am bon de commande wala nga am DRP wala nga am marché banque yi accompagner la daal di ñëw jox la trente pour cent wala ñu jox la 50 pour cent mais banque boo demati léegi mu ne la li ñu am ci ay contentieux batiment ñoo xam ne jox nañ leen seen xaalis ñu waroon leen fay fayuñu leen moo tax banque bi léegi suñu la joxatee marché bi daanaka yow yaay uti sa fonds prop xam nga loolu it euh, lu ñu war a lijjanti la nit ki boo demee ba jox ko contrat ba jox ko DRP wala nga jox ko marché buy liggéey décaissement yi dafa war a topp ah buy jeexal chantier bi bu ngeen def PV de réception war koo mën a jox xaalisam mais amul entrepreneur bu nekk Sénégal di dund wala entreprise te dundoo lii muy bu mag ba bu ndaw bi au moins nit ñi mën a souffler am na ci ñoo xam ne boo dem banque lan la lay laaj du la laaj garanti ban garantie nga am nga joxe garanti nga ne dans un an dinaa fay soo fayul léegi ñoom ñoo lay poursuivre. bu fekkoon sa kër nga joxe sa perte nga sa kër non seulement ñi ne demoon ñu lebal la seen xaalis ñooñu dañ lay bëgg di traîner ci justice ñoom xamuñ lu dul yaa ko leb fay ko ah yooyu yëpp nag problème la yoo xam ne ñii fi nekk nii dinañ ci mën a dox xool ko sàmbar ko ba au moins entrepreneur yi mën a tegaat ci yoon parce que boo gisee chômage bi gën a metti entreprise yooyu ñoo doxul parce que entreprise yooyu bu doxoon foo taxawee di nga jël kiy bale ku mën amul métier sax di nga jël kii bale di nga jël maçon ba di nga jël menuisier ba aluminium ba ñoom ñëpp dañ doon circuler mais léegi ba affaire bi doxatul man boo ma waree andi sànci sax ma ne la baax na parce que li ñu ma abel ci bor mënuñu ma koo fay keneen noonu keneen noonu moo waral chômage bi métti ñu ngi defee ne sax ci géej gi laag yooyu mais bati BTP bi li mu doon gàddu ci somage euh, benn kii gàddu ko Abdourahmane Gueye moom mi nga xamante ne teel na dugg ci wàllu wi mu amoon ay ambition waaye it ay objectif yi nga xamante ne yooyu la tëral ci domaine bi mu nekk. damaa teel a am vision duggoon naa foo xam ne dañ ma fa bëggoon au moins mais ma gis ne man mii wóolu sama bopp comme ni ñu koy waxee gëm sama bopp créer sama entreprise yàlla dimbale ma presque sama carrière yëpp ma passé ko aéroport ah euh, euh, euh, boo xoolee. Euh, some yu mag yëpp yi am aéroport presque lu fa rafet lu ci bëri sama loxo ngi ci biir boo xoolee sommet francophone aussi yooyu yëpp bu amoon dañuy wax ne dem leen ngeen woowee Abdourahmane mu ñëw ñëwee ñu ne ma programme baa ngi nii ak ñeneen ak ñeneen ñu liggéey ko ba mucc ayib xam nga seet d'État yi dañ doon ñoo bari ba bëgg a dee aéroport bi di tàkk di boy ñëpp kontaan loolu yëpp dañ cee dugal suñu loxo yooyu nag boo ko demee ba ci biir nga xool yooyu da ne nag man jaratul woon sax may uti feneen parce que ñoom wóolu woon nañ ma jël lépp jox teg ko sama loxo ñu liggéey ci nag pendant presque trente et quelques années ah da ngay dem ba defe ne man maa moom sax foofu ndax lu ci xew dañ ma ciy boole dama kaay xool lii ak lii ak ba ci direction générale 18 pays membres yëpp bon sama carrière foofu laa ko passé moo tax ñu may ne entrepreneur aéronautique ah donc ma defaluma ma cinq ans mais mënuma lu dul sant yàlla waaw. yéegi nag jamono yooyu xale yi nga doon jël yëpp formé nga ci ay xale yoo xam ne. ñoom ñëpp tey am nañu entreprise muy aluminium muy menuiserie muy ñëpp dimbali nga leen ci li nga doon am nga leen di jox seeni wàll ba ñoom ñëpp tey ay entreprise yu mag lañu. ci entreprise bii biile ndaw yu bëri gis nañu ci seeni bopp waaye it am na it ñeneen ñoo xamante ne doon nañu leen former ci bërëb bi. entrepreneuriat moom daanaka sax euh, ouvrier yi dañuy toog ci bureau bëriwul ndax ci àll ba la xam nga boo gañee marché acca ñëpp dem nañ boo demee ci région dañ lay imposer di nga am ñoo fa mën a jël ah di nga am ñoo fa mën a jël parce que fii xëy na nga yóbbu fa say équipe mais boo demee di nga jël waa dëkk ba ñi fa nekk maçon ñi fa nekk nii moo tax affaire bi day naat ñoom ñu am ci dara yóbbu seen waa kër moo tax di nga dem ba yàgg sa sànc bi jeex lu ñu bëgg nga ñibbi waxuma la dara mais di nga am affinité boo xam ne foofu vraiment même boo fa liggéeyatul sax léeg nga dem fa ñu am xew yégal la nga dem donc yooyu yëpp dafa yaatu woon ci entreprise boo xoolee entreprise yii problème bi ñu am nii mooy bu ñu leen dimbalee marché yi jaar yoon ñuy am seen i DRP di dem di liggéey léegi chômage bi wàññeeku ci côté boobu parce que da ngay gis sax koo xam ne maçon qualifié la woon mu jékki-jékki nga dajeek moom ne ko waaye yow léegi looy def mu ne non maa ngi ci commerce bi lu tax nga ne maçon bi doxul te dafa metti comprendre nga xam nga am na ci jamono yoo xam ne bi ñuy defar jam ñaajo nii bi ñuy defar jam ñaajo demoon nañu ba manqué ferrailleur Guinée lañ jëlee ji ay ferrailleurs ñoo feere jam ñaajo lu ci ëpp ferrailleurs dem ba amatul senegal ah li fi am lëpp mënuñoo feere foofu dañoo mujj jële ay Guinée ñu ñëw ak seen équipe booy ñu defar ay kii xam nga yooyu yëpp nag dañu leen war a joxaat doole xale yëpp kenn nangootul jàng métier koo ci wax bëgg nga lu yomb moo tax ñuy dem ci géej gi géej gi li leen ciy yóbbu mooy dangay ngay nekk ak nit ci koñ mu wóor leen ne bu doon doole njàmbaar rek munu la nga jékki-jékki ñu ne jël na gaal bi yegg na wala voyagé na yegg na nga xëy suba dégg moo tabax kër gii moo takk soxna su rafet si ah mooy def nii yóbbu na yaayam màkk nga ne noo attends mais man kon lan laa fiy def yaay boo ma jàppale woon bu ma demee nangam loolu it xaw na andi tuuti gaal yi parce que si seen morom yi la ñuy roy te wërsëg nag daa yemul léegi nag fañ doon dem mu neex jamono yii metti na ndax ñi jël Nicaragua yëpp maa ngi ci am benn waay may waxtaan ak moom xam la na may wax nee na ma père ma ne waaw mu ne monsieur reyante naa Nicaragua ba ñëw États-Unis mais boo yeewoo da defe ne ni nga ne wala dangay ngay defee ni Sandaga nga ne dañoo fees foofu dell ba américains yi dañuy dañ leen di wër di leen xool mënuñu am liggéey parce que bu fekkee da ngaa jóge fii dem amoo kayit sans papier nga nga dugg dëkku jàmbur kañ ngay am papier ba mën a am liggéey ba mën a andi sa waa kër léegi nag yow yaa ngi dundaat lu gën a jafe yoon bi nga nekk fa nag léegi lang fa ñu lay fat doo am ku la fat yooyu yëpp dañ koy dund man léeg-léeg dañ ma ciy woo woo woo ba mais bu ma amoon paas sax ma ñibbisee moo may gën a lii mais jamono bi ñuy dem koo ci wax toogal mu ne kii damaa bañ mais loolu la ñuy dund Espagne noonu liggéey moo amatul foofu fii sax moo xaw a tuuti ndax fii moom yàgg yàgg rek dina naat ñoom ñëpp ñu dellu si waat incha allah. ci loolee ñaata ndaw la entreprise bi daal di formé depuis bañ ko créer. boo def 40 ans 35 ans ah. boobaa di nga am yeneen ni xalaat parce que ngay diversifier yaatal. Hmm. ah parce que entreprise it boo ci duggee li ngay def nii yàgg yàgg retraite day ñëw mag day ñëw ah yooyu nag euh, lépp li nga ciy gagné au moins di nga am feneen foo ko dugal foo ko tas. ak ñi nga formé ak yooyu tout ça là mais doo ko bàyyi ndax sa métier la ndax boo ko bàyyi léegi nga màgget booy dox hmm. léegi téye ki parce que goût bi léegi nag da ngay dem a dem ba yàgg sax li ñu doon xaw a ragal loo parce que boo xoolee année yëpp sax xawumaa def activité. parce que boo xoolee liñ ma ameel moo bëri liñ ma ameel te feyuñu ma te da nga ko liggéey sonn ci ñàq ci ah ñu def ay PV gi yëpp ñu nga am sa këyit mu leer naññ mënuñu laa fay. léeg-léeg ñëw sax ne njëkk aéroport boo dañuy ne dóor mu daanu ma liggéey kenn du ma door dóor liggéey duñu fayee ko factures yi xaw a tag ma leen bu ma kenn waxati dóor mu daanu dóoratuma kenn mu daanu parce que damay bar mais yéen du ngeen bar donc am na ci ay euh, moment yu bëri yoo xam ne bu ñu moytoon ñëw taxaw rek ñëpp tàccu ko gongo maa ngi lay maa ngi lay wax benn affaire sax xam nga bi euh, <laughs> ndeysaan bi bi Ablaye Wade di jëndee avion Sarkozy bi ah hangar avion bi dañuy ñëw ñu ne léegi il faut que ñu defar ko ci neuf jours ndeysaan dem si yàlla birinoo ñëw toog ak njaay Ndiaye maa ngi leen di nuyu birinoo yàlla na ko yàlla yërëm mbay Ndiaye ma ñëw bi ma ñëwee rek dañ ma ne Abdourahmane raison d'état li ñu bëgg léegi mooy ci neuf jours la ñu bëgg nga defar équipage yu sénégalais yi ak équipage yu français yi yow rek yaa ñu ci doy parce que bu ñu lancé appel d'offre appel d'offre bi day jël neuf jours day jël ay mois te bu boobaa ay CDE ak ñooñu ñooy ñëw te procédure bu mooy gudd yow rek la yaakaar ni boo ne waaw yow sa waaw tampon la boo ne waaw di nga ko def man leen ah parce que affaire état la nga ne waaw avion bi ñëw fi te pare ñu ne ma eh amul xalaat de action rek. tu vois may xaw a miime tuuti ñu ne ma non non non non fay beeg yooyu du problème ma leen mais budget bi pour dugg ñu ne ma loolu du problème loo wax ñu ne du problème bëgg rek nga engagé wu. ah mais bi ma engagé woo autorité jox ma lu mat 100 badge mais au moins bi ñuy def 6 jours. boobu pare naa liggéey bi nettuwaayu ko ba mu set xam nga yooyu yooyu façon nit léegi. Mm-hmm. ñoo xam ne euh, moo xaw a manqué tuuti ci ci seen léegi da ngay gis ñu jox la sànce jox la dele ah nga toog ba dele ba passé yaa ngi xaar ñoom ñu dekkee sel la wala yaa ngi xaar mais am dañu amoon fond même boo leen fayul sax dañuy dem ak seen fond liggéey ba pare di la topp comprendre mais yooyu ma lay wax noonu yun yooyu ñi def yëpp am na ci loo xam ne ba fi may wax ak yow ni fayuñu ko da ngay préféré sax am charge jox ko. ngeen discuter ngeen liggéey mu dem parce que xam nga léegi boo jëlee nit frais yi dafay bëri te euh, résultat yi moo mooy néew parce que tey bu demee ba miin mën naa am dootul xëy seeti heure ah boo waxee mu ne la sama maam moo jaaroon fii nangam nangam rigueur gi mu waroon nga waroon am finalement day dem ba yàgg même boo leen jëlee nii ci sànc sax ah man nga leen jël nga wax ak ñoom ne dinaa la fay par semaine gis nga ñu liggéeyal semaine nga yëkkati seen xaalis yëpp fay leen lundi ba doo leen gis dem nañ feneen ña ngay seeti ne fee moo ëpp te ku fekk nag ñoom seen côté dañoo naqaree faral de. naka noonee moom mi ngi ñëwaat ci wàllum entrepreneuriat sénégalais mi nga xamante ne daanaka ay jafe kese lay jànkoonteel la fii ci mim réew. bëri na bëri parce que boo xoolee xam nga ñoom tey boo jëlee kenn koo xam ne mu ngi woon am benn euh, magasin 4 mètres. di ci taaba taaba ci alminion nga ñëw woo ko yëkkati benn marché x million jox ko accompagner ko su ko liggéeyee ba pare rek day dem yoonam après nga topp ko ni di ko encadrer teeloon nañu jamono yoo xam ne sax suñu amee marché dañuy jënd bagage yëpp ci biti mu ñëw mais yooyu après dañ ko mujj bàyyi di liggéey ak ñoom parce que léeg-léeg sax di nga leen jàngalaat ndax léeg-léeg daanaa ñëw nga ne ma <laughs> benn fenêtre bi ah ñu ngi koy defee cent cinquante mille cent nangam am na sànce yoo xam ne loo koy jëlee du baax bu boobaa da nga koy ne kaay ma woon la àdduna mu ñëw nga ne ko léegi nañu calculer matériel bi yëpp mu calculer lii calculer lii calculer lii calculer lii calculer lii nga jox ko mu liggéey ba pare nga ne ko léegi lii matériel bi lii la lii main d'œuvre xam nga tey yow bu la facturé loon ay cent cinquante mille deux cent mille doo ci génn mais taxul nga bàyyi ko encadré nga ko ngeen jënd matériel bi mu pare nga fay ko main d'œuvre boo xam ne day nekk millions yu bëri mu gañe ci nga gañe ci yooyu yëpp après ñoom bu ñu fa jógee chaque jour dañu lay woo di la wax ne ndax leneen amul parce que non seulement liggéey na ko efficacité baax mais jàngal nga ko. ba ñuy ndar kàpp entretien biile Abdourahmane Gueye di joxe di joxe ay conseil ndaw yi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu yi. Ah, ndaw yi de bon li leen di dénk mooy parce que ñi ciy dem yëpp kenn du leen yëg peut-être seen yaay rek leen di yëg yaay boo ma jàppale woon ah, yaay ji jaay ay takkaayam ak jox ko ba pare mel ni ku xamul li dëkk biir. bu doom ja labee ci géej ga wala bu dee mu door a yuuxu ñu door a xam ne yaay jee ko jox xaalis comprendre nga bon loolu yëpp doon leen ñaanal pour ñu tekki la parce que gis nga sa yeneen morom yi tekki nañu mais yooyu yëpp na leen yaay ji euh, toog jàppale seen doom yi fii te xam ne bu yàlla defee jàmm mën na neex ndax nawet bi suñu ñaanee mu am ndox ñu doon béy ñu delloo leen seen suuf parce que léegi nag boo xoolee dañu ne nit def leen béy mais suuf amatul maire yi bu ñu ne salaamaaleykum li ñuy njëkk a xool mooy dagg suuf yi ñoo ëpp la doole dagg ko ba pare yow nga amoon sa suuf ak sa njaboot di béy ñu ne dañ la jox 4 parcelles loolu ban liggéey la dañ la ci jox 4 parcelles yow nga jël 4 parcelles moo xam 2 millions 3 millions la amatoo suuf amatoo foo béy après ñu ne def leen béy loolu yëpp handicap la loolu yëpp lu ñu war a assainir la ba mu set wi delloowaat suuf si nit ñi da mën a dem béyi am rentabilité yéen it di leen gërëm di leen sant te na xale yi daal nañu muñ xam ne léegi mu neex